bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi seetaan Walfajri TV di déglu Walfajri FM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokel ci weeru tedd yi nga xam ne tàmbali nañu koog bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla ñu àggali koog alhamdulilahi rabbil alamin ci biir loolu rek Walfajri TV ci biir programme ak émission bii di yóbbalu koor dugg na ci biir dëkk bi rek di jàkkaarloo ak ay borom xam-xam yoo xam ne mën nañu indi ay mbind yoo xam ne dina jëriñ askan wi rawatina ci jamono yi nga xam ne mooy jamonoy koor ani lan la koor di undu lan la war a koor lan la koor war a mën a indil ki nga xam ne mu ngi koy def lan la mën a indil société bi nga xam ne ñu ngi ko fay defee ci wàllu social ak wàllu bennoo ak wàllu déggoo loolu yëpp nekk ay mbind yoo xam ne mu ngi ci biir koor bu ko defee rek ci biir loolu ñu ngi toog ak Euh, borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi leen di joxoñ ak baaraam ci biir senegal muy kan muy euh, Mourchid Ahmed Iyane Thiam mi jiite conseil supérieur islamique bu Sénégal bu ñu waxee Cheikh Mourchid Ahmed Iyane Thiam wax nañu euh, benn dynamo boo xam ne dafay jóg pour bennale umma islamiya bi waaye tàmbale ko fii ci biir Sénégal kon bu ñu toogee ak moom tey ci yóbbalu koor gi dinañ fi jëlee yóbbal boo xam ne képp ku ko jëfandikoo sa koor du neen kon euh, Serigne Mourchid ñu am mbégte tey rek euh, di toogak ak yow ngir rek nga baaxee askan wi li nga xam ne mooy yóbbal bi ñu war a yóbbaloo ci koor gi nga xam ne dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim lan lañ ci jullit war a yóbbaloo digganteem ak boppam ak digganteem ak moroom jërëjëfati Hassan dangaa yàgg euh, bëggal nit ñi lu baax yàgg bëgg nekk ci liggéeyu lislaam moo tax li la indeeti tey bi nga waxee mana la jërëjëfati bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala xayri banil bashar sayidina wa maulana wa habibina محمد بن عبد الله شفيع الخلق عامة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بك يتدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسنجين ني جام فوري يالا يالا koo romb na ko ñaanal jàmm ci mbedd mi waxuma la ki nga bokk fanaanal ci kër gi bu ma la mayee audience sax man yàlla muy julli yi balay sa audience bee jeex soo ñaanalul nit ñi jàmm du ma la nangul sa julli te soo ñaanalul jàmm sa julli yàqu na boo jullee te waxuloo asalaamaaleykum sa julli yàqu na gis ngeen li jàmm foore faf nag senegal yàlla tàggat nu ci bëggante jàmm yéy naa yéen yéy kenn ku nekk yéy ko sa moroom ba koo romb sax ci mbedd mi nekk asalaamaaleykum wala jàmm ngeen fanaan wala jàmm ngeen yendu cay jàmm ji bu ñàkkoon danga xam ni jàmm rek lépp jàmm nag fileeg ñàkk goo ko dangay foog ne ku ne am na lu ne da ngay foog ne mën nga lu ne waaye ci benn minute soo ci ñàkkee jàmm ngay foog ne àdduna tukki na kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla moo wax ne naa leen ko ñaanal yéen ñi may seetaan ah Sëriñ Xasan jamono ju ne nit war na caa bëgg def lu baax war na caa jéem a def lu baax war na caa sax def lu baax su ko ko yàlla xéewalee rawatina nag jamono achahrul abrak chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaas wa bayinatin min alhuda parce que yàlla moo dégg yaram boo waxee yaram rek boo ca déggee as tuuti nga xam ne ku wax kii ku màgg la weeru tedd wii di koor lu rëy xew ci loo xam ne yàlla dëxañ ci lu rëy loo xam ne dëxuñu ko ci na weer ndax moo ne inna anzalnaahu fi leylatil qadr wante leylatul qadri boobu xayrun min alfi shahr guddi googu leylatul qadr mu ne man yàlla maa ngi ko dëxañ ci biir weeru koor wi te nag guddi googu ndiggante su tuuti sayta sa tax ma tuddee guddi gi leelatul xadra ndiggante soo see soo ci jaamoo yàlla ba ma nangul la ko xëy na mat na waxtu xëy na mat na ñaari waxtu bu ma la ko nangulee moo gën a foor junni ci bëccëg guddi yu ma la nangul seeni ñaan te loolu mooy quatre-vingt-trois ans ak dara wala quatre-vingt-quatre ans rek soo bëggee noppalu loolu mooy dunduk doomu aadama waay waay kon boog yóbbal ci koor gii yóbbal ci weer wii nga war ca am la nga la nga ci séenu te pour nga am ko faw nga am xel mu dal ma ngay war a def la la yàlla digal ci biir weer wi ndax nga am loolee la la yàlla digal nag pour nga def ko moom rek ci moom rek la ñuy jaaraat di nettali d'abord booy dugg ci koor gi war ngaa am yey nay def lu baax ci koor gi soo ko daan def nga def ko soo ko daawul def nga def ko yéy ni ji ba nopp bokk yi soo yéy nee baax yéy naa jëriñ sa bopp yéy naa jëriñ sa morom yooyu naa jëriñu ci sa ci sa ci boroom nga topp nag di ko ab bëgg koo appliqué nag nga bëggal sa bopp li nga bëggal sa moroom ci mbaax nga bañal sa sa nga bañal sa mbokk li nga bañal sa bopp ci lu bon nga tabe ci li nga am li nga am nag bari na de lekk gak naan ji xëy na lañuy faral di wax waaye li nga am nag ci yéenu ju baax ci xel mu baax ci xel mu rafet lépp loo am te mu baax nga yéenaal ko keneen nga yéen nga fas yéen a def sa ndigali borom yi mu la digal ne nga nekk nit te bala ngay mën a nekk nit nga niitu bul tëñëx tëñëxi di kërëb kërëb bi di yàkkamti ba ba ba ba këpp dab yi nga xam ne ñoom nga doon terale say say gan yoo fonk lool nga kërëb kërëb bi ba tuur ko fexeel ba li baax sax li bon war fee mën a jóge rafetal njort ci sa bopp rafetal njorte say bokk ndax ci rafet njorte gi rek yow ak say bokk ci ngay mën a jëriñoo sa borom koor gi nga fas na jikku yu baax yu rëy yi yàlla digle yi yonent bi def àdduna sépp seet gis ko boo fekkee dunduk yonent bi danga da gis jëfam boo ko fekkewul danga nga gis jëfam ndax jëfam ju màgg ji bu léegi mu ngi fi mooy bëgg a baax tey baaxal di jëriñ koo tane di baal ku la tooñ bañ a tayal di góor-góorlu di kër-kër yi ngir mën a jëriñe ngir mën a jëriñu mbokk yi yi ñu dagganal yépp mooy yi baax ci yow rek waaye yi ñu araamal yëpp mooy yi bon ci yow bul tooñ bul sàcc bul këf bul bul def lu bon bul naan sàngara waaye mooy muccal rek bul def drogue mooy muccal boo ko defee yow yaay jëkkaloo keneen yi mu la tere yëpp mooy bu loro yi mu digal yëpp mooy fexeel ba am njëriñ nga amal ko sa bopp amal ko sa amal ko sa morom kon yóbbulu koor gi lu rëy la war nga cee fees beesal sa yéy na ngir def li la yàlla sant nga beesal sa am jom ji nga xam ne yàlla moom la la sant jom ji li ci gën a jiitu mooy nga fa fexe ne naa di naa naa góorgóorlu ngir jariño waaye ni yëng rek waxtu woo amee loo lekk wala loo naan sax danga koo ñaan wala sa morom yërëm la jox la ko te xëy na sax xam nga xamee ne sax tayal la ko yóbbee bu la ko joxe pare gees daal di dëmmayu ne cëm yaa ñàkk jom kon boog nga am jom yóbbalu koor nga am jom nga toqoog muñ li koor gi gën a mën a jàngale mooy mooy nga muñ seeta rek nga am ay milliards wala ay millions wala sax ay centaine de mille nga war a añ nga war a reer nga war a naan sa kafe nga war a naan sa attaay yii yëpp waxtu bu mu daan jot ci dul koor nga gaawantu ku la ko yéex a defal sax nga mer suma kafe gi ana suma nangam waaye ci koor gi kër yépp nga ne ko fa ñukk ak yeneen yoo xam ne yii seeni xel dana ko daj yéen te duma ko tudd lu ci nekk mu neex la lool mu dagal la lool mu lew la doom ci ba koor ñëwagul waaye koor gi nag yàlla na la gannaaw woor nga nag lii moom na ko fi bàyyi fi leeg jënka jënt bi jënt baa ngi ci kaw bu suuxee nag li ma lay si digal nga delluwaat kon mooy nga am jom jikkoy rasulillahi ngay muñ di muñ le di rafet njort nag rawatina rafet njort bokk yi lu yàqu lu yàqu lu yàqu njaanaka ñaaw njort moo ko yàq inna baada zanni ismun ñaaw njort léeg-léeg mu tas àdduna léeg-léeg mu tasum réew léeg-léeg mu tasuk bokk te fekk ñaaw njort rekk moom moo ko indi waaye soo baaxoon def li la yàlla wax ci njort même soo ci jàppee soo jàppee sax ne lii war naa ñaaw nga ne ko pot muñ ko waaye nga def nag la la ci yàlla wax mooy gën moo jàpp boo boo gisee dara mu xaw a niroog lu bon te itam mën nga koo firee ne lu baax la yàlla gaawal udrul huduud bi shubuhaat gaawal fireeku façon bu baax bi te nga bàyyi façon bu bon bi boo ko defee bu ëllëgee da nga xel cey lii su ko jàppee woon na ma ko fookee woon kon musiba am kon mbokk yi yóbbulu koor am jom dafa rëy baat bu phrase bu gàtt la waaye ak am solo ci dund gi cey boo ñàkkee jom ni ngay loree sa bopp ni ngay loree sa morom ak ni ngay loroo ci sa borom ndax boo xasee ñàkk jom daanaka sax tuuti ko doon mën a yàlla sax daf lay wax naan cim damay faral di firé benn aaya kutilal insaanu ma ak fara dama koy faral dama koy faral di firé ne yàlla dafa xool nit ba ci kanam ne ko cim yaa ñàkk jom kutilal insaanu ma ak fara jom dafa am solo ku ñàkk jom daanaka mooy kéeféer bi ndax lool boo tegee lii ay yàlla wax kutilal insaanu maa ak fara yal na nit dee moo ñàkk jom maa ak fara mooy moo gën ma moo ñàkk jom maa ngi ko firee maa ak fara ab kenn gënu koo nekk yéeféer kenn gënu koo nekk koy fakk jëf kon koor gaangoog bokk yu tedd yi koor gaangoog xéewal gaangoog mbaax gaangoog am foo baaxee ma ngi noonu am foo jàngee sax ci baax ma ngi noonu danga ci xamee dëgg te ngoy ci dëgg boo xamee dëgg gi nga ngoy ci ma ngi bokk ci li gën a màgg waxuma li ci yóbbulu weeru koor waaye diggante weeru koor ak weeru koor wu ne soo ko defee ci weeru koor wi dina la yóbbu ci weeru koor yu bare bare bare nga tàmm ko mën ko di ko def daa amub yool rek muy am jom mu di bañ gàcce mbokk yi portion bu tuuti bu nu yàlla jox nu nekk ak moom te sax xamunu fu mu ne ci nun muy xel xel moomu mu di loo xam ne man damay faral di wax ne benn portion la ci yàlla benn tomb la bu yàlla jël dugal ko ci nit muy xel mi ndax xel moomu soo ko amul sax daanaka amatoo dootoo am bakkaar du ma wax sax daanaka dootoo am bakkaar loo def que tu n'es pas responsable waaye ci xel mi su la ko yàlla joxe ba pare te doo ko jëfandikoo benn yoon wala doo ko jëfandikoo fi nga ko war a jëfandikoo yaa cay jëkka loru ña ca des ña jege wala nga jegee leen ñooy topp ci ñiy jëkk loru xel ñàkk ko ama dootoo nit waaye nga am ko doo ko jëfandikoo yaa ngi yàq valeur bu rey xam naa ni itam da nga ci ñu yàlla wax ne cim yaa ñàkk jom xel mi nag foo ko génnee foofee amatul njëriñ foo ko dugalul da nga fa wéet ak baax boo de foo mën a dem te dugaloo faata sam xel da nga fa wéet te danga fa yàgg yàq kon bokk yi li gën a cher li gën a am solo te nu xam ko nu nit te yàlla jox nu ko nuy nekk ak moom te loola dinu musal ci waxtu wu ne dinu musal ci musiba muy xel nga am sa xel d'ailleurs sax boo amul xel mi boo amul xel mi dootoo nekk nit moo tax wala bu ñu ne nit niitu moo niito ga moo tax ñu ne nit nit dafay nite waaye su nitewul su niituwul du nite su su nitewul dootul nekk nit nit xel mi buñ ko fatte fen bokk yi xel mi mooy ngëm gi xel mi mooy bëgg-bëgg bi xel mi mooy gëm lu baax ndax boo ko boo ràññeewu lu baax doo ko mën a gëm te xel mee la koy gën a mën a won dëgg xol bi mooy yëg ni lii baax na waaye xel mi moo lay won ne lii baax na li lay won nag ak li lay yëgloo ñoo xaw a niroo yëg-yëg bi ci xol bi la xam-xam bi ci xel mi la ñaar yi bu ci fàddu sa dund du baax ñi ngay dund dool it danañ yàgg na ndax ñaar yi ku ci ñàkk benn wala ñaar yëpp yow da nga yàgg loor da keneen kon nag xasan alhamdulilahi rabbil alamin bi nu yàlla joxee lislaam bi nu yàlla bi yàlla yónnee ki gën ci mbindeef yi muy muhammadu rasulullah moom moom ne ku ci nun nu am dara ju yëm ni yàlla di yónni ku ni mel ci nun ba pare mu ñëw ndeysaan ñi gën a baax ñu léeg-léeg ñu fàtte fàttelu ko wala léeg-léeg ñu fàtte fàtte ne muhammadu rasulullah moo sànkoon léppam dundam réewam jamonoom ay ñoñam lépp mu summeeku ci ne maa ngi wuti fu ma ñoŋalee li ma ya mission bi ma yàlla jox ba kenn du ko yàq gannaaw bu mu amee treize ans ci makkal mukarrama ñu koy lor ñëpp dogoog moom gannaaw ñeen fukki at bi ko yàlla yónnee mu amal treize ans di di ñogal li ko yàlla jox génnul ñëpp dogook moom kenn du wax ak moom ba treize ans yi mat ci la ko yàlla na nga léegi ku la na nga fayu na nga ngoy ci li la jox te fexeel mu daj àdduna ci la décidé nag dem màkkal mu ka dem Madinatul Munawwara gannaaw treize ans kon yóbbal baa ngoog waay waay ku ne damay nekk ci àdduna si duma sonna yow kon Muhammadu Rasulullahi du sab yonent ku nekk ci àdduna si ne duma duma duma duma dimbale nit kon Muhammadu Rasulullahi du du sab yonent ku nekk ci àdduna si ne ku ma tànne suma yoon nekkul ci yow ah kon de royuloo Muhammadu Rasulullah ku nekk ci si ne du ma liggéey ngir jëriñu ah yaa ngi yàq diine ji yaa ngi yàq ki ngay tuddoo kon boog yéen bokk jullit yi dara gënul ba dara gënul a baax li nu yàlla jox mooy al na ko woykat wa tuddee woykat bu màgg wa xam borom xam-xam bu màgg ba ad diinu wal xilaafatu bayaatun wal amru shura wal xuququ qadaaw diine fa tabaarakallahu mooy yoon wi nu yàlla rëddal te yàlla nag lu mu jub koj mu am njëriñ moo tax mu yàlla nenu lii ma leen rëddal mu yoon wi te maa ko rëddal suma bopp ngir ngeen jëriñu mooy lislaam boobu wa man yabtaqi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l min al xaasirin yàlla jox nanu li gën ci li mu war a joxe muy lislam yàlla dëxañ ci li gën ci li nit war a am pour bu jëriñu àdduna ak àlaxira muy nu mu fiy dundee te ma dundin wa baax ak nu muy delloo ci boromam te dellu win wa rafet nga jëriñu fii jëriñu foofee mooy lislaam batu bu mag batu bu mag baa batu jàmm moom la Cheikh Omarul Fuutiyu wax ci téereem bu màgg bi ne tuddee ko ne ko safinatu saada wala neex nga ne safinatu salaam est-ce que googu gaal yal na buur yàlla may nu ci Sénégal nu mën a dugg ci gaal googu nu mën caa dugg yàlla nangu nu dugg ci te yàlla kat bi mu indee nit ñu baax ñi ci réew mi yàlla may leen nit ñu leen fi wuutu ñuy baaxal nañu doon baaxalee ñu mel ni Cheikh Umar Fuuti mi fi tuddoon léegi bi nu dee ba yàlla may nu ñu ni mel na gën a santati rek ndax mu nu yokkal ñu ni mel lu te lu baax nag du doy mukk lu munu mën a yokkal nag ci ñu baax ñi mënu may ba pare ak ñu baax ñi nuy dundal lu mënu ci yokkal rek nu gën a jëlati te nag ñii bëgg a baaxal réew mi yàlla na buur yàlla téyele leen amul kenn nag koo xam ne dañu naan kii amul njëriñ ci réew mi yéen ñi ñëw fii tey ngir bëgg a feddali la ngeen daan defal jullit yi wala la ngeen daan defal réew mi ci fonk ko ak fonk lu koy jëriñ mu tax ngeen ñëw fi ngeen sànq seen lépp ñëw fi déglu suma kàddu yii du suma jëma jee tax de li ngeen bëgg li ngeen jàpp ne xëy na mokkal naa ko xam naa ko ci lëf ci li yàlla wax ci li yonent bi wax ci weeru kooram gu tedd bii ngeen nañ ko këf nañ ko fëkk si këf sallax ko nit ñi yéen a luñ ci am ci yool di yéen ñu ci ëppale yal na buur yàlla leen na saxal yal na buur yàlla leen na bëggal ndam yal na buur yàlla yekko leen wér bu ngeen defee li ngeen bëgg a def ci mbaax bi ci barkab xayrul alamin wa ma zalika ala bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ñu ko waxee woon ci bi ñuy ubbi waxtaan wi rek noonu la firndewoo ci waxtaan wi ndax waxtaan la woo xam ne ku ci nekk mën na ci taataane lu lay gàgganti ci fa nga yëngatu moo xam ndaw nga moo xam mag nga moo xam dëkk nga moo xam gan nga moo xam julit nga moo xam beneen diine nga yore li fi jot ci ay kàddu jóge ci Mursid Ahmad Iyane Thiam doomu aadama bi mën na ko jariñoo mu nekk plus ci dundam ak yoon wi mu war a jaar ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di euh, am mbégte euh, toogoon fi taataan toogaat fi taataan te mm, lépp luñ fi taataanee rek mu nekk njariñ loo xam ne askan wi daf ciy gis seen bopp mu ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mu sit Ahmed Iyane Thiam euh, sant itam équipe bi nga xam ne àndoon nañu ñun ci liggéey bi kii di Mami Kanté ak Massayer ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen sant ñi ko monté kii di euh, ñi ko monté ak ñi ko exécuté ci régie bi ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen jox leen beneen dox daje ci seen émission bii di yóbbalu koor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.